waaye di yëgal tuuti les euh, euh, sunu mbokk taalibe yeeg jullit yi xamal ni nous avons am nañu six télévision yoo xam ne direct lañ koy def kon nag ci ñëpp bàyyi xel am na juróom-benn télévision yoo xam ne en direct lañ ko di à partir de 9h kon léegi ku ñëwul te nekk bitim réew mbaa foo man ne ci Sénégal da nga mën da nga mën a seetaan euh, maanaam journée Sëñ Bara ñu ngi ñaar nag sëñ Bassirou mbakke mu yàlla bàyyi ma gudd fan gu ànd ak wér nun nun daal nu ngi koy waajal. Euh, principalement noonu waa Guy Mbind bis bu suñu bis la ñu ngi ciy siyaare ñëpp di soñ seen communication ñu leen mise en place sept heures lay doon pour ñuy def direct ñëpp mu mën a ñëw teel a ñu ngi ciy ñaanal ñëpp jàmm yéen yaa defal nu jàmm